asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di waat di leen ziar baax a baax di leen ñuy siiw ñëpp seen seen sama xalaat TV di leen fàttali yéen a ngi seen euh, programme euh, mun naa ko tuddee programme bu mujj bi euh, njariñu lekk wala njariñu garab wala voilà mais dinañ ko dëntu <laughs> ko ko dëntu parce que dañoo comme dañoo changé vidéo yi ni ñu ko doon defee disposition bi yaakaar naa waxoon nañ ko pour intégrer yeneen aspect yoo xam ni daaw ñu ko waxtaane ci wàllu wàllum wér-gu-yaram ak wàllum jëfandikoo yenn lekk yi voilà ci côté faj nag ci surtout quoi voilà. Mm-hmm. parce que am na yoo xam ne waxoon nañ ci ay vitamines. mais ci côté faj gi nag li ñuy gën a concentré ci yeneen yi. moo tax professeur ñu ngi fàttali ñu ngi dalal professeur Ousmane Ndiaye muy moom lañ def ci suuf écran bi vidéo yi ñu def yëpp def nañ numéro ci suuf écran bi pour koo xam da nga ko soxla ba fa dem seeti ko tey nag professeur ginnaaw bañ la nuyoo ziar la liñ bëggoon a waxtaane mooy Euh, ñi nga xam dañoo bëgg ginaar daal maanaam tey siise siise yi léegi njariñu yàpp ginaar waaw moom lañ bëggoon xam maanaam kiy lekk yàpp ginaar yan njariñ la ko yàpp woowu di indi ci wér-gu-yaramam voilà ak baax na di lekk ginaar yu bari wala jaru ko di lekk ginaar yu bari ak tamit ndax am na parce que bu ñu nee ginaar ginaar rek dafa ñaari ginaar ci réew bi muy ginaar bi nga xam ne ginaaru élevage la ndax moo ginaar gi nga xam moom lañ yar fii ci village bañ màkk ndax même ginaar yi la waaw yooyu yëpp nga leeralaale ko ci loolu voilà sëñ Ba xam naa ni suñu bëggee leeral yëpp vidéo bi dina ko dund mm-hmm. mais dinañ ko tënk rek ci lu yamamaay lu xaw a gàtt mm-hmm. ba nit ñi ñu suivre dañ war a comprendre mm-hmm. ça veut dire que ginaar comme ni ko waxee rek dafa bëri ay njëriñ euh, boo xoolee sax euh, may commencé mooy sëriñ su bëri dañuy bëgg ginaar Mhm. Mhm. Mhm. naa baatin bu ci nekk. Euh, ci booy gëstu charia ci booy gëstu ci baatin. waaw. ci lasraar ci ñaan dañ lay wax ni mag ñi dañ lay wax ni rek ginaar euh, boo ko bindee nga bind karimu ñooy bokk adat deux cent soixante-dix la ginaar ginaar ak Karim. <laughs> waaw mm-hmm. Karimu deux cent soixante dix la. Mm-hmm. ginaar boo ko bindee keef gi vingt la nuun gi cinquante. Mm-hmm. liif gi ko bij euh, sëqi un la. ak raa gi deux cent. muy cent soixante onze nga alif euh, liif gi mu des deux cent soixante dix. donc mu toll ak Karimu. Karimu keef gi vingt la. raa gi deux cent la yaa gi dix la mim gi quarante la. muy deux cent quarante. waaw damaa ay ci nag li nga may gis nii <laughs> ko jàng de uh-huh. ko léegi bu ko defee mag ñi dañ daan wax ne boo xëyee ndekkee ginaar adat mm-hmm. boo xëyee mooy xel mu adat waaw mm-hmm. boo xëyee ndekkee ginaar mm-hmm. day am wërsëg parce xam nga ginaar dafa am wërsëg waaw waaw ginaar dafa tax tax moom wërsëg waaw pap pap euh, ginaar dàq jàpp yi exemple bàyyil ginaar rek ba yeewi ko rek bàyyi ko fi mën na dund ba ba dee te doo ko xont waaw. Hmm? waaw te doo ko xont waaw léegi fa muy lekk loolu fi muy lekk mu. nga ci kër gi da muy taxawal te doo ko mës a jox lekk day dund dëgg la <laughs> nga gis ko sax muy kës ni fu mu kës daanaka am na lu mu fay génnee. waaw donc bu ko defee loolu mag ñi daan wax moo tax bu fekkee dañoo bëgg di am wërsëg bu bari. Mhm. xëy di ubbeekoo ginaar maanaam di lekk ginaar suba teel fajar. Mhm. ngay am wërsëg. Mhm. waaw. yenn maanaam. yow wax ni ngi ree xam naa ni. naa ni ku mel ni sëñ Babacar Mbaye Kër Mbaye Fall maa ngi koy nuyu bu dee bi mooy seetaan bi mooy reetaan donc pour walla ni. Uh-huh. Euh, mag ñi lu ñu def rek du hasard. Uh-huh. Euh, comprendre léegi bu ko defee nag ginaar googu. Uh-huh. tamit ngay lekk tamit bu ñëwee ci wàllu faj bi ñuy def. nga gis dafa am ay vitamines. am na ay protéines. am na ay phosphore yu demee noonu. léegi ginaar googu nag dafa baax ci li ñuy wax ci wàllu yax. ñu koy lekk baax na ci wàllu santé des os mhm. wala ci wàllu bëñ mhm. wala ci wàllu rein mhm. ñi nga xam ne dañuy amee problème rein parfois mën lekk wala ñi nga xam ne dañuy am problème mu xol donc bokkut ak ginaar yu ginaar yu yàpp bi ñu doon waxtaanee fële nga xam ne ñi amee problème mu xol mën nañ ko duñ ko lekk dama leen nañ koo tere mais ñi nga xam ne am nañ problème mu xol même bu dee yàpp ginaar moom deful deful dara mën na mën na ko jël parce que baax na ci moom riche na en vitamine B aussi nga xamante nii baxna na ci le bon fonctionnement du corps. Mhm. ci yaram bi muy doxé mhm. baxna na aussi ci ñi nga xamante ni day développer seen cerveau. Mhm. maanaam booy lekk euh, mën nay développer sa cerveau. day renforcer aussi ay muscles muy yaram bi yu demee non waaw day favoriser la santé cardiaque. mom ci walu yooyu daf koy daf koy joxé day dundal yaram maanaam der bi waaw sa sa deru yaram nii deru kaw bi nii sooy lekk yàpp te effectivement loolu sax c'est vrai da ngay gis ni euh, da ngay am teint bu rafet quoi mm-hmm. donc day réduire aussi le cancer ñi nga xam ne am nañ cancer mm-hmm. Euh, wala amaguñu cancer bu koy lekk cancer mën na leen a. ban prévention prévention la. day dundalaat les cellules. Mhm. Euh, cellules yi nga xam ne ci doomu aadama. Mhm. day favoriser sommeil mooy ñi nga xam ne am problème mu nelaw ak yu demee noonu donc suñ koy utiliser mën nañuy mën nañuy nelaw bu baax a baax. Mhm. donc day dindi aussi li wax stress. stress waaw ñi nga xam ne dañuy stress da koy da koy wàññi bu baax. ak dépression donc suñuy lekk ginaar mën na koo wàññi bu baax. day protéger. bët yi mhm. donc des yeux mhm. day protéger aussi karaw yi mhm. ak yu demee noonu donc gis nga ni eh, moom baax na ci ci lu bari quoi donc moom it day nekk loo xamante ni paap comme ni nga waxee woon ci ñaari façon ginaar yi ginaaru élevage moom bëriwul njëriñ waaw ku bëgg ginaar dëgg moom ginaaru poule yi ñuy wax. Mhm. moom moo gën fuuf ginaaru élevage yi. d'accord donc donc ku mënoon a kuy mën a lekk te li nga soxla dëgg. Mhm. nga di ko ci lekk. nga xam li nga ci wax yëpp. ginaar lu bu naturel bi moo tax. moo tax ñuy wax kay waaw donc donc ci boobu lañ ko boobu lañ ko soxlaawee. Mhm. donc noonu noonu lay demee kon ginaaru naturel bi. moo gën ginaaru. élevage bi. loolu yaakaar naa professeur kon yaakaar naa leer na. te ba pare am na solo trop. parce tamit euh, euh, foofu. am na fi benn liggéey bu am solo boo xam ne sénégal yi def nañ ko fi moo xam ne mun nañ leen see summil sàkku hmm. muy fexe nañ ba ginaar moom disponible fi quantité hmm. boo xoolee ginaar yi ñu daan importer ay euh, el ak yooyu pooj yeeg yooyu léegi problème la pour nga gis nit ku koy jënd bëreetul hmm. même ba léegi am na benn benn yu koy jaay mais pour nga gis ko jënd bëreetul ñu bëri léegi dañuy jënd ginaar normal parce que ginaar léegi fexe nañ ba bari na ci réew mi ci réew mi te loolu défi la boobu Sénégal relevé nañ ko. Mhm. comme ni ñu relevé de soble ba nga xamante ni des fois dina toog période bi yàgg boo xam ne soble du fi dugg te dañuy am soble bu doy. Mhm. loolu nag euh, li nga xam ne moom la ëpp lu ñuy jëfandikoo muy ñaar nga xam ne xaalis bu bëree bari la yóbbu bitim réew di ñu indil lu ñuy consommé war nañ cee góorgóorlu ba mën cee def loolu benn bi mooy bale. Mhm. beneen mooy ceeb ceeb waaw voilà comme mënuñu koo changé ak yeneen ko ba pare kon nañ ko fee bay nangu na fi comme professeur ñu bàyyi la nga tàggatoo. jërëjëf vidéo bi di sëñ Pape ngi lay nuyu di di nuyu mbokku internet yëpp comme ni ñu ko waxee di leen jégluwaat rek. Mm-hmm. ci guddal bi. mais toujours c' est dans le cadre du bien faire rek. Mhm. donc ñu ngi jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ana bëgg seen doom jàng alquran ju sell lool waaye itam ànd ak yarub lislaam bu wér lool daaray alquran yi nii ji wuyoo daaray Serigne Modou Gueye Pire nekkoon jàngalekatub alquran bu ñu ràññee woon lool waaye itam njiitu daara ji ji wuyoo ci ki nga xam ne moom moo di docteur Ousmane Ndiaye nekk itam ku ñu ràññee lool fii ci réewum senegal moo waral itam.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 doom mën a jàng alquran ji sell loolu te wér képp koo xam ne nag bëgg ngaa jokkoo ak ñoom wooteel ci 77 536 83 85 di leen xamal na itam daaray Serigne Modou Gueye Pire dina daal di taxaw bépp dongo boo xam ne nag amee nga jafe-jafe ci sa wàllu wér-gu-yaram maanaam ci mpaj di leen xamal itam daare alquran ji nag ma nga nekkee foofii ca ñàkkuran foofii ca kër Ousmane Diaye